aywa merci honorable euh, moo comme ni ngeen ko gisee rek assemblée bi euh, boo seetloo tey ku ne xam na li fi ne euh, lu metti Sénégal la tey on peut dire que la République du Sénégal est malade malade de par ñu ko jiite tey muy assemblée assemblée nationale boo seetloo benn député bu pouvoir bi nekk ndax ñoom ñëpp ña nga jëm ci investiture président Macky Sall ça dire encore une fois que les traitements dont yi Sénégalais yi di subir face à ce régime la amuñu benn respect ci Sénégalais yi amuñu benn respect ci institution bi ñu yor donc c'est ce qui est regrettable mooy tey euh, le parti ay eu raison sur la patrie comme ñoom niñ ko daa bàkkoo on est nous sommes désolés de cette situation bi nga xamee ni tey di ngeen ko gis ci image yi vraiment c'est honteux pour une république c'est honteux pour un état sérieux donc ñoo ko gisandoo assemblée nationale est laissée à rade par les députés de Benno parce que depuis 9 heures la ñu war a reprendre suñu travaux ñu renvoyé ko jusqu'à 16 heures maintenant il est 17 heures et quart doo fi gis benn picc parce que ñu ngi ca investiture président Macky Sall kon nag ma voilà kon Mor yow lool lool lan moo ci sax la waaw di ko ñaawlu rek ndax lii euh, dañoo jaawale ndax ñii duñu ay républicain ndax itam buñ fi ñëwee askan wi war na fee ñu war a càmbar li nga xam ne bi moo jëm ci alalu réew mi ministre bi ñëw na ak ak itam ay collaborateur waaye gis ñu fi benn député boo xam ne bokk na ci ma bono bennoo bokk yaakaar la mu bennoo tas yaakaar tas na yaakaaru réew mi ndax yaakaar naa ne loolu waroon ci ñoom député ñëw def seen liggéey ñiy politique dem seen politique kenn ku nekk la ngay dox mën nga koo dox te du tee nit ñëpp kenn ku nekk la ngay dox mën réussir mais li ñu wax ne ñoom tey daal wane nañ ne seenu cuune ak seenu matadi ak seenu manqué bu ñàkk respecté réew mi moo am fii ci assemblée nationale ñu ngi sant ñëpp nag te xam ne sénégalais yi nañu bi seen bët ak seen i xef te xool bu baax ndax lii dox nii lii raam ci ñàkk ba la jëm war nañ ko faj saafara te ñu ngi jëm ci élection te élection rek ko mën a faj parce yi tey moo lay wan ne rek mi ngi si dëj bis la boo xamante tey Sénégal yëpp war na xam ne ñi nga xam ñooy waa Benno Bokk Yaakaar defuñu respecté Sénégalais yi lu toll ni ministre de l'agriculture àll bi baykat yi bay ba pare ñu bëgg koo jaay mënuñu koo jaay député benn boo ko yaakaar yi bàyyi fi ministre depuis 14h30 ministre bi toog ñoom ñu bañ a ñëw gis nekk lan di sabaru ak di puugaréewu di degsi loo xamante ni jëfi askan bi man jàpp ne nag lii moo jar a xeex peuple bi nga xamante ñoo faloo ñii tey lii mooy seenu at si ñoom di toll ministre de l'agriculture ñëw fi tey mun ñu sax maanaam ñëw sagal ko pour maanaam mën a wati bési pour baykat yi maanaam mën a jël seen gerte c'est vraiment